bon di li nga xam ne ni day tax ba réew yi mën a ab xaalis ci yeneen devise tax na ba mu Sénégal jot a ab 750 millions ci xaalisu Amérique ñu mun koo xayma ci quatre cent cinquante milliards ci suñu xaalis bu ñu sukkandikoo ci Bloomberg. bor la boo xam ne tamit euh, dañ ko prévoir woon ci euh, budget 2024 ndax assemblée nationale moom dafa autorisé woon jëruñ dénk wàllum finance ci gouvernement bu Macky Sall mu daal di ab lu tolloog rek ñaari junni ak ñeenti téeméeri milliards ak lu tekk ci li nga xam ne mooy gouvernement actuel bi nag moom moom ci boppam moo war a yëkkati xaalis boobee. Amath Ndiaye di enseignant chercheur ca FASEG jàpp ni naam bor gi soxla nañ ko waaye am na ay risques yi ci nekk. il faut voir waaw taux intérêt bi nag moom daanaka élevé na lool waaye tamit bu fekkee ne ci téeméer boo jël dañu daal di denc juróom-ñaar yi ak lu teg loole dana gën a yokk naam waaye tamit ci économistes yi nga xam ne dañoo daal di tolloole taux d'endettement bi nga xam ne moo ñeel ci wàllum croissance ci koomu Sénégal waaye tam bu fekkee dañ ko daal di méngale croissance ci at yi ñu génne sax taux boobu yaakaar tamit dina gën a yokk as lëf eh waaye mu jàpp it ni jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu mën a jànkonteel ci taux de change bi néew na lool. en fait parce que au moins. waaw ci jamono joo nga xam ne dañuy daal di fay bor bi le euh, mën na nekk tamit ci wàllum weccet bi maanaam wàllum monnaie ñu kon kon apprécier ci ñu xool naka nañuy rembourser wala déet waaye loolee prévoir nañ ko naam waaye tam ci kaw Sénégal loolee nar na daal néew lool ci CFA bi nga xam ne moom la utiliser que le bor yi nga xam ne ni moom la Sénégal jël ci eurobond bi ñor koo fay ba atum 2031 te kii nga xam ne xam-xamam daa màcc ci wàllum koom jàpp ni lu baax la ndax day tax ba ñu mën a jooyanti déficit budgétaire bi nga xam ne ni ci la Sénégal nekk boobu ba léegi waaye it mën a financer suñu déficitu balance de paiement